loo wax ci Abdoulaye Ndiaye. sant yàlla. ñaanal ko. ala alamin bég na. kii ginnaaw yàlla baayam nu mel alamin. wallaahi mu nekk ci réew mi nag di dimbali ñëpp. gis nga kii ku toog ci réew war ko téye. barke alxuraan. parce que ñëpp lay dimbali ñëpp la fi nekkal jaboote ñëpp di dimbali ñëpp di jàppale ñëpp farfarloo kon ku toog ci réew mi war a téye kii amal na njëriñ réew billaahi boo demee mu mel fii ci Tiwaawoon na la mel kër Serigne Touba tubaarkàlla boo demee Ndiassane ak cere ba na na mel xam nga nu ma ko tuddee. ku war ku war togg ko waaw. dama ne ko woon réew mi kenn du fi dànk fañ xañtang moromata bokkoo ci. mu def nii Tiwaawoon sigal na baayam sigël na ndeyam sigël nay bokkam waaye nag bisu. Euh, rasulillahi ci kër si jaaji Malick Malick Sambara Kousé yonent bi fanaan mook sëñ Bamba képp ko xam. nga ni ma laajal gëstul dugal. Sambara Kousé. ba yonent bi ganee jamono sëriñ si jaaji Malick di ko topp ba mu dugg ci biir bàmmeel wan nu lépp. la ilaha illallah. sëriñ wax ni. naari góor yi jëlale na saaba ya ak ñi doon ànd ak bi waaye fas yéen doon war seen puuriti laab yi ñoo gën wàllu yi. laa ilaaha illa ko yow bi soo duggoon ci biirum ñàkk danaa jël sama lex bii man sëñ Tuubaa tëral ko ci dég yi defal la koy dal. laa ilaaha illa kooku la kooku la Ablaay màggal. barke bi moo jar a moo tax. fan yii yëpp génnuma këram fi nga dal damay dem damay jaabante damay dem fi ne peex laa jóge waat léegi ñëw moo ko jëf ci man jëf ko sama njaboot jëf ko ci réew mi bëgg réew mi bëgg tiwaawoon lii mu def ci jumaa si Jaaji Maalik ji def ko ci kër sëñ Babacar gi du neen faraasu nuroo naag yàq waaye nguuba ko weddi <laughs> ne forage mooy lan jël dugub sotti ko ci naaju tàng tawul amul baax maasale ko sa tànk baag yàlla loolu laa jàq de bu tawee nga góob yàlla dala koy dencal ba baax ñëw mu saxal ko ca. la ilaha illallah moo tax ñu ne forage da nga benn wax da nga ne Samb ak Kousé yonent bi la fay fanaan. si Njaaji Malick ak sëñ Bamba ngëm nañ ko dara des fa. ñoom ñaar rek ko xam. nga lu des màkk xeesaay. <laughs> jëf yaa ngi fi ñëw na euh, yàlla ko moo tax kuy dem te àndoog mag ñi doo dem ku teg mag ñi baat doo doo dem mag ñi kenn du kenn xeex jëm ci ñoom ku ko def gaare ñoom mag ñi ba dootoo am jàmm mag ñi ku leen tooñ dootoo am jàmm waaw barke alxuraan ku leen tooñ doo am jàmm ku leen kontar am jàmm saxaar yi ak walwal yi jëm Tuuba ak Tiwaawoon tey oto borom mu ni mbayyaanu doy billaahi wa saan saxaar ga ni mbéyyaama doy te wax ko saxaar ga wax ko foo jëm